asalaamaaleykum salaam wa rahmatulah ni nga ko waxee ne ci coono yi nga wax rek di kurti kurti. waaw ak itam di yëngatu daal. di yëngatu tabarakallahu naka naka daara ji. Euh, ni ma koy waxee saa su nekk rek. di ah. yëngatu te koo ne acca mu ne déet. waaw dëgg la def nañ toog ba ca karam. wallaay wallaay wallaay ndeysaan wallaay wallaay loolu de moom mooy li mooy li wér. moom ñu bari mën nañoo jàmbat méttit wi waaye taxut kenn bëgg fe kenn bëgg a dem. dëgg la ci téere yi may am nag. Uh-huh. tudde ko al kutubul waarida. Mm-hmm. te maa ngi am xilaasu zahab mhm. bi fii sirati xeer la arab Cheikh El Hadj Malick ndeysaan ak euh, al muntaxab mhm. al muntaxab mhm. wa yaxtawi tasawudu sigaar ak al jawharu nafis li Cheikh al Xadim ndeysaan al mawsuwa al islamiya li Cheikh El Hadj Malick ki nu ko baaxee di sunu mbokk mële euh, ca Figo Hadj Ibrahima Niang ca Espagne tubarkàlla ci mbindum sunu mbokk imaam Samba Diagne wallaay ndeysaan bu sànnaar waaw sëñ Samba yal na ko yàlla yokku wér amiin amiin loolu am na solo lool tam ab sëriñ ku ko joxe jox nga ko lu mu bëgg wallaay ndeysaan <laughs> te itam jox nga ko lu am solo alhamdulilah euh, noonu itam la ñu jàppalantee ci daara ji wallaay ndeysaan xam naa bala maa ñëw ak oustaz ci gan gi nga xam ne moom la ñu am maa ngi koy annoncé léegi mhm. ginnaaw bi ñu noppee ci nuyoo yooyu euh, mhm. ñaari baat rek yu jëm ci actualité bi mhm. ñu ngi doon waxtaane ay bis jee ñu génn lu jëmoon ci tolluwaayu réew mi ak coow moo ko lëmbe mhm. di lu jëm ci wàllu pétrole beek euh, diggante Alioune Sall ak euh, ay Cosmos la ñuy wax ak bi beek maanaam daal tur ya bari na lool te mënoon a ñàkk waaw te coow a ñàkk mhm. diggante yooyu yëpp itam la cay lënt ka leer yëpp mënoon a mhm. waaye nag daa mel ne wax jaa ngi gën di yokk mi ngi gën di dem ajjuma ji ñu génn euh, ñi neex ñoom daal ñoo taxawal kuréelu aar li moom wala li bokk wàccoon nañ ci mbedd mi préfet tere leen ko naalaat nañ ko itam ajjumay suba ji waaye itam ki nga xam ne mooy alaaji Amidou Kassé nekk ministre conseiller ba noppi ñu dénk ko lépp lu jëm ci wàllu communication fële ca pale ba mm-hmm. daa dem ca TV5 daal yi yëkkati fa ay kàddu yoo xam ne nee nañ daa wuute ak li nga xam ne moom la Alioune Sall waxoon ak ñi koy jàppal cummikaay li ñu waxoon yëpp mel ne tàmbalee wuute googu am na coow laa ngi gën a yokk loolu man jàngat nga ci def yow jërëjëf ci laaj bu am solo bi mm-hmm. jërëjëf ci tolluwaay bi ni ma la wax sànq mm-hmm. lu mënoon na ñàkk la gis nga li ñëpp bokk wala nga ko jéem ko caa doom wala nga jéem ko caa def wala nangam même su fekkee jaar na ci yoon ñol ñol ji jaarul na bàyyi ko dëgg la waaw waaw dëgg la de parce que ñol-ñol ji baaxul cim réew réew ak dal moo ca baax dégg nga génn ca mbedd yaag ñax toog ñoom seen yëpp bu amul lu xew rek loolu du xew dëgg la baaxul cim réew jigut am réew aussi suñ mbàkk dafa am benn bis mm. am ko def ci jamono yonent bi alayhi salaatu mu lu jar duma mu ne duma leen ko ki njëkk a tàmbali daf ko dóor rek ne ko li ngay bon hmm. daa boole dóor yaa ki wax yonent bi ne ko xee eh, hmm. dañ laa dóor la mais xasloowuñ la hmm. est-ce que loolu li muy tekki mooy penc bi ñun ñëpp dañoo war a di moytu luy jur coow ñun ñëpp nag sa intérêt mën naa am sax waaye bu juree coow wala mu nekk lu sensible bàyyi ko fa moo gën la xeet bi dëgg la dëgg la même bu dee say sañ-sañ nag sañ-sañ yi privé la sañ-sañ yi nàngam la loolu lépp ay lay lay doon ginnaaw gi ndax ka ca xamul dara moom xamu ca dara la doon yoon rek mooy daw ba loolu bañ am bu loolu amul nag jàmm na ñooy waaye bu loolu amee gis nga ñol ñol ji fi ne fu ne fu ne la jëm ndax ku wax ñu ne feele féete ku waxut fi ñu ne feele féete te kenn mënut ñàkk wax dëgg la de dëgg la de kenn mënut ñàkk wax donc yooyu daal wax dëgg yàllam doon ko moytul ci pénc mooy tax stabilité gi ñu bëgg ci mpenc am. ñëpp mhm. dal. Mhm. ñu liggéey réew mi. Mhm. lu ko mooy fii la ñu nekk coow rek. te pétrole bi ñëwagut. Mm-hmm. taalaguñ ci gaz. Mm-hmm. guñ ci ab litre. Mm-hmm. mu nar a jul ñol ñol ji. dëgg la te sëñ Cheikh nee na am réew mën naa développé ba dem yoonam te du jaar ci pétrole. du jaar ci gaz. dëgg la waaw waaye bu pétrole ak xasee ñëw itam oustaz daa mel ne kilifa réew ci boppam am na ci nag taxawaay bu mu ci war a am. waaw moom ci boppam moom mi nga xam ne mooy ndeyu mbili gi ñu fal ko. Euh, liy dogal ne ci ab loxoom. mu war a jubbanti war a leeral lépp loo xam ne lëndëm na. te it bu ñu delloo ci ginnaaw bi ñu door a fal ñii fi nekk oustaz ku ci mel ne Karim wadd mhm. dañ ne kat moom la mu yoroon da caa am loo xam ne daa daa luubu mhm. ñu topp ko ba fa tànk ba yam mhm. am ñu ci ànd ak ñu ci àndut Khalifa Sall mi ñu topp noonu itam ba fa mbiree yem am ñu ci ànd ak ñu ci àndut bu amee ci lii itam euh, maanaam toppiin geek façon discours beeg taxawin wi bu melut ne ya ko jiitu rek day mel ne daa am lu muy nuru la ma la ci daan wax rek mm. mooy gis nga do réew moom mm. boo xasee falu mm. amul kii maa ma fal kii faluma mm-hmm. kii moo bokk kii bokkul mm-hmm. ñëpp yaay seen chef mm-hmm. léegi nag li la ciy génne mm. li la ciy génne mm. mooy ñëpp yem ci kanam atte dëgg la lu ko mooy nit ñi seeni commentaire mën naa jur loo xam ne du baax ci mpenc du baax ci nga xam ne moom moo jitu loolu rek lay tekki moo tax kon bu bu bu sanction yi jógee wala coow li jóg na maas ci ko ñëpp rek maas la ñëpp waaye bu amee te yëf yooyu niroowut ak bokkut ak yooyu. Mhm. nun nun day xajamal lii xew. Mhm. ñu naan li ñu bëgg mooy listu bi ñii ñoo def nangam ñu teg leen ci yoon. Mhm. listu bi ñuy def ñu nangam ñu neexal leen. dëgg la loolu loolu soo xam ne waxoon. ama man dala ma. mu jax tàkk. waaye lu ko mooy rek dañu daal jàpp ko ne ah kon kat àtte bi nangam nangam daal di tàmbalee wóola di ko ñu ñu àtte. te wax naa la penc mi ñett buñ leen wóolawut duñ dem fenn. àttekat bi. fajkat bi jàngalekat bi. Mm-hmm. ñooñu faaw ñu wóolu leen. faaw ñu wóolu leen ngir man a dem ci kanam. te nit nag bu bëggee am amaana day am fiqa. Mm-hmm. maanaam ku bëgg ñu am ci yow confiance. Mm-hmm. da ngay wóor. wóor nag la ci gën a jiitu mooy def lu leer. lépp rek leer. jamono ñooyu est-ce que jamono ñooyu lan moo ci war a doon taxawaayu daara ji su ma ko waxee mooy nitu diine yi ndax ñoom itam am nañ wàll ci réew mi te itam lu ñu fi wax ñu ne ñun dañ ñoo desal ginnaaw wala boolewuñ ñu ci ndax li ñoom danañ ci boole seen bu dee loolu war nañ koo def lan moo ci war doon seen taxawaay ba ba wax man lam yahtam bi umurul muslimina hmm. lu mel ni taxoon hmm. dafa wax ne hmm. li muy yitteelu politiciens yi la war a yitteelu sëriñu daara bi léegi nag ndax ñoo bokk nu ñuy defee mën nañoo ñàkk bokk nu ñuy defee waaye daal war naa nekk lu leen jiteel mënuñoo bokk nag ak politiciens yi peut-être ñuy toju seen bopp janax ndax kenn ku nekk na nga toj bopp janax xam waaye daal seetaan mi moom warta nekk dëgg la war ngaa dox ba fekkee luy leer la mu leer nañ waaw ni ko ni ko politiciens yi defee noonu la ko sëriñ daara yi war a defee dëgg la la dox te muy leer ndax dañuy wax nit ki tekkil sa ndomb ak tànk ndax dañuy wax président lii nga ci war a def loolu daal lu ci ku ci nekk rek mm. képp koo tax ni xam ne yaa ngi dëkk ci penc bi mm-hmm. seetaan mi wër la la nga war mooy fexe ba loolu leer mm-hmm. nan lay leera nag loolu moom ña koy leer ñoo koy xam mm-hmm. wa shukran ndeysaan am na solo oustaz kon fexe ba mu leer rek moo ci soxal askan wi muy muy ñi nga xamante ne ñoom àgguñu fa ñu dogale waaye nag am na ci wàllu woo xam ne bu bu duggee ci réew mi te dugg fi mu war a duggee mu jig leen bu fa duggut itam te musiba am itam musiba ma lor leen kon ñooñu moom li ñu ñaan mooy na leer. na leer euh, nañ ba lenn lu nekk dugg fa mu war a dugg jàmm ne ñooyu. ndeysaan am na solo ñoo ngi la ciy jaajëfal oustaz euh, waa prévention routière ñoom day nee nañ accident yi daal bi ñu ko xoolee évaluer ko euh, seetantal ko dañoo gis ne bari na lool. waaye liñ ci tënk nee nañ li ci ëpp nit ñi ñoo ko def waaye nekku ne matériel yi la wala yoon yi la wala yooyu waaye comportement wu euh, sénégalais bi euh, lambda bi ci euh, ni muy doxalee moo waral accident yi bari. Mhm. Mhm. ma waxati ko. Mhm. ñoon dañoo parewul pour jële fi accident yi. loolooy affaire bi. ndeysaan. lii daw ci biir dakaar ci oto yu màggat te wër ñoo daw. fuñ jële fi si technique. day na waar day na waar de. waaw. <laughs> léeg-léeg oto romb la daf lay romb rek sa yaram di daw yow. <laughs> waaw bëgguma wax ne oto bay mel. ndax kon léegi tey ñu ne. <laughs> oto sàngam lay wax. waaye am na oto yoo xam ne na oto yoo xam ne moom sëñ Bakk bu ñu fi jaaree. mën nañu ko def appartement jën yi sànni ji ko ci géej. waaw oto bi moom wërta am yi kayit. dëgg la léeg-léeg wax la ko ne la Mbàkke xam nga ne oto bi wërta am yi kayit. Mm-hmm, mm-hmm. waaye du tee mu nga am ay kayitam. dëgg la di daw na oto yëpp. donc accident yi ko fii li ko fii jëlee mm-hmm. mooy benn tël yii ñu am daa war a gën a yaatu oto yii daa war a gën a dëgër dawalkat yi dañoo war a gën a teg ci yar ñett yu daal bu amee accident yi tàmbalee wàññeeku dëgg la waaw te te itam ma waxaat ko assurance def am njariñ mu ëpp njariñ mi mu am ko dawal ab diir te laaloo kenn kenn laalu la am na lu la waa assurance war a war a la kii kii mbëkkaate am na lu ko assurance war a teg uhuh. waaw jàmm ne ñooy uhuh. wa shukran am na am na solo jërëjëf oustaz ñaari tomb yooyu mi ngi ci suñ kanam danañ gën a am yeneen i waxtu itam ngir gën koo yaatal gën koo séq waxtaane ko bu ñu xoolee suñ montre dañuy gis ne 23 heures jot na ba teg juróom-ñeenti simili ni ñuy rek mooy oustaz daal di jubantiku dalal euh, suñu gan gi ni ma ko waxee léegi bi ñuy ubbi oustaz Mouhamed Lamine Dramé فأنتم شمس أمتنا بليل كيد بارس داج جليد خذوا قلبا تحجرة الحديد خذوه voilà war ju yahudi xaj makkoon da gan gaa noonu jërëjëf oustaz mhm. gan gaa ngi nii ñu dalal ko oustaz Mouhamadul Amine asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu xaj Mbàkke mhm. maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu sunu sëriñ sunu soppee al ustaaz al kabir Cheikh Alioune Sall xafizahullahu wa raahu amiin di déglu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi topp émission bu mag bi di al bidaaya mhm. jërëjëf ñu ngi lay fay nuyoo usas di ko nuyu euh, al amin euh, Dramé di euh, kenn ci sa gars yi. <laughs> Dramé afghan <laughs> Dramé afghan. loolaay tur woowee ndeysaan ci jamono yooye <laughs> moo tax ñaare bu dara xewee ci du ma wax monde arabe bi waaye ci bitim réew te soxal jullit yi suñu xel daj ko. mu war a ñëw ñu seq ak moom waxtaan xam naa damay bàyyi rek nga dalal ko bu ko defee mu daal di dugg ci eh, xew-xew bi nga xam ne moo tax tey ñu teg ko xaj euh, dame ginnaaw bi ñu la nuyoo. Mm-hmm. ba noppi fay la nuyu. Mm-hmm. Euh, dañu lay faral di woo ci Moyen-Orient. Mm-hmm. monde arabe wala monde islamique. bu ci dara xewee. ñu woo la ñaari dalal la. tey nag illay dalal la ji. Ah. moo di. Euh, benn président bu génn adduna fële ca Égypte. waaw euh, lundi bi ñu génn. waaye fi ñuy tàmbalee mooy dañ leen njëkk laajub laaj kooku mooy kan kan mooy Mouhamed Moursi waaw loolu lañ lay njëkk laaj ci laaj bu njëkk. Euh, jërëjëf euh, oustaz ci dalal bi ak laaj bu am solo boobu di jaale ummal islamiya bi yëpp. di jaali tamit képp koo xam ne nitu alquran nga parce que defe naa bu ñu doon euh, tànn président yi mokkal alquran ci àddina bi moom mooy ki wóorle moom moom lañ mën a wax ne mooy président boo xam ne mokkal na alquran mokkal gu wér bu fekkee am na kuñ cey teg Rajab Tayyip Erdogan la bu turki bu turki bu dul ñaar ñooñu nag moom def naa président yi ci mën a liir alxuraan liir bu jàkk ñooñu dañ leen di compter <laughs> kon bu lii dalee ci kawam dal ci suñu kaw dañuy jaale képp koo xam ne nitu alxuraan nga mm-hmm. di di jaale sëriñ daara yi mm-hmm. euh, ndax lii e, ndamal alxuraan la mm-hmm. ndamal daara la waaye di jaale tamit képp koo xam ne scientifique nga ci àddina bi di fàttali na moom ci scientifique yi gën a mag ci monde arab bi ci la bokk mm-hmm. bi mu mokkalee alquran ba pare bokk ci étudiants yi daq jàng ci réew mi mm-hmm. ci la am bourse dem Amérique mm-hmm. ci université Californie foofu la jàngee lépp loo xamante ni dafa aju ci énergie solaire mu bokk ci scientifique yi nga xam ne NASA ci boppam sàkk woon nañ ci moom liggéey ak moom mu lànk ne bi may jàng dama doon wut xam-xam pour dellu sama dëkk defar ko bi mu paree it américains yi joxoon nañ ko nationalité mu ne leen ñëwuma woon fii pour wut fi nationalité dama ñëwoon pour wut xam-xam fa lawla nafara min kulli firqati minhum taifatun li yatafaqahu fi diini wa li yunziru qawmahum ida rajau ilayhim laallahum yaxdaruun mu mu gedd nationalité Amérique ba gedd posture yooyu yëpp ñu diggoon ko mhm. daal di ñibbi dëkkam mhm. Mhm. kon dinañ ko jaale képp kuy scientifique di leen ko jaale képp koo xamante ne aussi parlementaire nga parce que 2005 bi ñuy xool parlementaire yi ne ci àddina bi yëpp mooy nekkoon parlementaire bi gënoon a ràññeeku en tant que député ci monde bi yëpp gën a mën a taxaw xeex li taxoon ñu fal ko dinañ ko jaale tamit nag képp koo xam ne démocrate nga mhm. tamit dëgg ci yow awal raisinu taxawa mhm. démocratie ba mu sosoo ba léegi mhm. historiens yi nee nañu juróom ñaari junni ci ay at mosuñu am président boo xam ne peuple baa ko tànn mu ngi doog am ci Mohamed Morsi kon képp kuy démocrate moom wax dëgg yàlla danañ la ko jaale waaye dinañ ko jaale képp koo xam ne nitu jàmm nga Cheikh Ali Mohamed Mursi ci déclaration yi mu def ci biir prison bi bokk na ci li mu wax ne ñun risalatu salaam la indil àddina bi suñu xol yi ëmbuñu ci lul yiw pour àddina bi moo tax lépp lu aju ci violence musul nangu musu ko nangoo jëfandikoo. bi dooguma la bi ko Al Jazeera dalalee. waaw ci liqaawul yawm ci euh, avril 2013. loolu la doon baamtu li nga wax nii. waaw. risalatu salaam. dëgg la waaw. oustaz ndaw ndaw si ko dalaloon. Mhm. doon na ko laaj ci yooyu ay laaj yu bëree bëri waaye fu mu ko jug rek. Mhm. mu ne ko nax nu risalatu na risalatu salaam. Mhm. xam nga. jàmm mhm. bu ñu xoolee dëgg-dëgg définition yi ko nit ñi jox dafa bari mhm. waaye définition yi ñu ko joxe yi yi ci foo dafa bari mhm. jàmm ki ko mën a définir wax lan mooy jàmm mooy assalaam wallahu subhanahu wa taala jàmm ju dul jàmmi suñu borom du jàmm même bu ko àddina bi tuddee jàmm du jàmm tey àddina bi am na lu ñuy tuddee jàmm mais ñun ñëpp xam nañ ne du jàmm ay tappale la parce jàmm bu fekkee teguwul ci kaw màndu te mëntu doon jàmm coow la rek ak i naxaate te àddina bi tey wax dëgg yàlla bu ñu xoolee injustice bu mat sëkk moom moo taawu lépp daanaka Mouhamed Moursi imam mën nañ koo jaale daanaka mbaax lépp lu yiw ak mbaax ak ngor ak jom ak grandeur dinañ la jaale Mouhamed Moursi képp koo xamante ni dangaa sax ci ay principe bu dëgg ba dee fekk la ca delluwuloo ginnaaw benn yoon mhm. kooku dañ koy jaale Mouhamed Moursi mhm. bu ko neexoon tey ci ay château ci ay palais yi gën a neex lay dëkk mhm. toog négocier ak ñi ko ñi ko ñi daaneel proposé nañ ko lu nekk ci àddina bi waaye imam am na foo xam ne ci wax yi mu wax ci prison bi wax bii dama ko cité bind ko daf ne inchaa allah mhm. lan ugaadira sijna qabla abnaai almuctaqalin mhm. wa lan adxula daari qabla banaati altaahiraat mhm. lu ngeen ma mën a jox ci àddina ak lu ngeen ma mën a dikk fekk benn xale ngi ci kaso yi xale Égypte man du ma génn kaso ñi nga xam ne bokk ak man position moo leen fi tax waaw fee ci biir du ma bu dee kenn des na ci biir kaso bi du ma génn maa ngi leen di waatelo du ma duggati sama kër ba ilaa yow mi diini hmm? fekk sama doom yu jigéen yi doom yu jigéen yi mooy lan hmm. mooy képp kuy doomu réew mi te te nekk jigéen ñu tëj la kaso hmm. mu ne fekk yàgg mu a dootul génn te xarf yi mu jëfandikoo mooy lan lan lam nam ko waxee woon noonu la ko defaatee ba léegi duggaatul këram ba léegi génnul kaso bi léegi tey nag ci gàttal euh, kii mooy Mouhamed Moursi nekk koo xamante ni nit ku yàlla baaxee mu bokk ci famille boo xam ne ay kaw-kaw lañ. Hmm, waaw jur yoo xam ne amuñu dara. ay baykat yaay ji jàngul. Hmm. comme yaay ñi ëpp ci hmm. dëkki kaw yi. waaye gëm boppam ak jàng teel a mokkal alquran maanaam moom lépp moo ko defal boppam. loolu nekk bind ci nit ku am jom. ni bi mu mokkalee alquran ba ni mu génn àddina mësu ko fàtte. yaa ngi mësta fët mhm. xam nga ci prison bi pendant six ans mhm. dañ ko tere alquran mu demandé leen lu dul benn du ñaar ne leen jox leen ma kaamil bu may jàngee mhm. ñu lànk la ilaha illallah am na boo xam ne dafa mer sax ne leen yéen a ngi ma koy tere mais yéen da ngeen fàtte ne mundu salaasina sana wa ana ahfazu kitaab allah ci lu wér. waaw ba ma ko def na 30 waaw yoo xamante ne maa ngi ak moom mu ngi sama dënn bi may laaj kaamil bi pour rek barkeelu. waaw teg ci sama loxo laa ci jublu woon. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga kooku mokkal googu. mokkal gu yéeme la. ba pare tere ko njabootam ñeenti at yu tegaloo. waaw. ñeenti at yu tegaloo. Mm-hmm. yaay du baay du doom. waaw dëkkandoo. lan moo lan moo lan moo indi loolu Dramé. Mm. gannaaw dañoo wax ne moom mooy ki njëkk fal ci démocratiquement foofee ca Égypte. Mm. mu gagné élection ya gagné boo xam ne gagné bu leer la cinquante et un virgule soixante treize pour cent. Mm-hmm. Mm-hmm. ci ña fa jot a wate. loolu leer naa ñi mu gagné waaye ginnaaw ba yii yëpp xew. ba euh, dix huit dix huit ans mois après. voilà voilà dix huit mois après mu mel ne koo xamante ne dafa këfoon nguur bañ këfaar ko ci moom teg ko tooñaange yi ñu ko teg. ba mu mujj fii mu mujj. waaw euh, lan moo waral loolu jaral laaj la. Mm-hmm. waaw xam nga boo ko toppee dafay gudd. waaye pour lu ñu gën a wàccee mbir mi rek. Mhm. pour nit ñuy déglu gën a mën a comprendre. Mhm. xam nga am na génn benn jullit bu baax bu fi nekkoon. Mhm. américain yi rey ko sànni ko ci géej gi. ñu koy wax Usama Ben Laden. waaw rahimahullah dafa mosoon wax benn wax. jamono da koy jox dëgg. dafa waxoon ne lii ñuy tuddee démocratie. ak soxla réew dem ñu. bàyyi peuple bi tànnal seen bopp. ku ku leen doo ñu tànn ko. mu ne loolu bi ko tubaab yi di def. ñun réewu arab yi bokkuñu ci. waaw ñun démocratie pour seen bopp la ñoom. ñun bokkuñ ci ñun bokkuñ ci. est-ce que est que ñoom li ñu yéene. Mhm. te di ñu ko wan toujours mooy di ñu coloniser. Mhm. di ñu di ñu di ñu jël ay dictateur di ko teg ci suñu kaw. Mhm. mais bi mu waxee loolu. Hmm. xam nga le mouvement islamique dafa am ay idéologie yu ci nekk. Hmm. ay tayaaraat. Hmm. bi mu waxee loolu égyptiens yi surtout les frères musulmans dañ na ko li nga wax nekkul. mën noo dem ci élection gagné ni ko nit ñi di gagné. gouverner réew mi. laa den ne leen bu ngeen gañee woon tamit du ngeen du ngeen gouverner. tubaab bi duñ leen bàyyi. gis nga. loolu mooy li daal Mursi kon. waaw pour wax la. yëf yi cest yaa koy jàngatal sa bopp. Mhm, wax dëgg la de. waaw mhm. Mouhamed Mursi mu ngi ñëw ci réew mi gannaaw bu révolution bi amee. Mhm. li fal Mursi ci élection yi. moo ëpp fuuf li faloon François Hollande. ca France. ca France waaye comme dëkk la boo xam ne armée bi. moom moom moom réew mi mm-hmm. armée bi mooy def lu ko neex mm-hmm. comme armée turque ni mu meloon mm-hmm. avant Erdogan di ñëw armee bi ku fa fàllu rek boo ko neexul mu jëlee la dëgg la bi mooy tànn njiit li mooy tànn njiit boo boo faloo di jéem a déconné mu rey la léegi mbaa mu daaneel la loolu moom mos di am turki quatre coups d'état am na fa te armée bi moo ko doon def léegi yëf yi noonu la demee Mohamed Morsi ñi ko daaneel du Assisi kese mais damay wax ne complot la boo xam ne international la xuwal mm-hmm. mm-hmm. kubra mm-hmm. fi l aalam ñoom ñëpp ñoo def taamur daal di daaneel Mursi dëgg la ñu nekkoon ci terrain bi ay ay Cissé ñu mel noonu reykatu nit ñooñu naankatu deret yooyu ñoom dañ faa nekk rek mais li ñu doon def yëpp ci biti la jógee dañ leen doon jox ndigal nan nga mën a comprendre bi ñu ko jàppee ba nga xamante ni kenn waxagul àdduna lu Mursi def. Mm-hmm. Union européenne dañ fa yebale délégation. Mm-hmm. ñu ñëw gisee ak Mursi. Amérique yebal et ñu ñëw John McCain. Wow. seen sénateur boobu. Mm bi mu ñëwee def na leen waaw yéen li ngeen bëgg lii bu ngeen ko tuddeewul coup d'état lan lay doon. Mm picc mi mu ngi niroo kanaara. Wow. di dox doxinu kanaara. Wow. di tëb tëbinu kanaara yor dunqi kanaara ngeen kenn du ko woowee kanaara. <laughs> kon ñoom tuddewuñ li ñu def Morsi tuddewuñ ko coup waa waaw léegi Macken John Macken loolu la leen waxoon. Hmm. daf ne leen mbir mi lii munul amul beneen tur bu dul coup d'état. wax dëgg dégg nga. Hmm. Alpha Omar Konaré. Hmm. moom mooy ki jóge woon Union européenne dem seeti Morsi. toog ak moom. bi siis yi jëlee affaire bees ah dëkku Afrique yëpp dañ ne woon lii coup d'état la. mais dañu xëy xëfa xippi rek. ñoom ñëpp ñu ñëpp ñu noppi. waxa waxatuñ lu jëm ci Morsi. lan moo leen noppiloo. man dama ne. Hmm. peut-être tubaab yi mën nañoo noppi. Hmm. peut-être euh, Israël mën nañu noppi parce que hmm. Assis yi ñoom lay liggéeyal. waaye ñun ñi nga xam ne egypte ci Afrique la bokk. ñu ñu ñun ñëpp ñu lànk ne ku fi def coup d'état kenn dootul wax ak yow dootuñu la jàppale. Sisi def li mu def ñu ne coup d'état la diggante xëfa xippi ñun ñëpp ñu soppi. ubbil Cissé bunti àddina bi yëpp. waaw Cissé Cissé Cissé. waruloon dugg Sénégal. man bi mu fii ñëw loolu laa dama ne reykatu nit bi nga xamante ni moo li Hitler def lu ko gën a bon mm. kii def na ko mm. tey fi mu jaar ci réew mi dañ ko waroon raxas koo xam ne li ñuy tuddee ñoom démocratie ci àdduna ak koo xamante ne ak faloom dafa doon falugu légal ñu war ko ko nangul moom yooyu yëpp jaaru ci ci benn waaw askan wi tànn nañ ki ñu bëgg mu toog àdduna foqar ci nañ ko ndax xëy na ni muy doxalee arrangé wu leen mm. jël ko moom mi leen arrangé dooleel ko mu toog àdduna nangulaat ko ko waaw léegi Haj Mbacke xoolal Obama ñoom dañ ne woon Égypte dootuñu dootul dim dootuñu ko dimbale ci ndimbal yi jógee Amérique. Hmm. mais ñëpp seetlu nañ ne bi Assis toogeek toogeeg léegi ndimbal yi jógee Amérique. Hmm. jëm ci Sisi kenn xamul nu mu toll. gannaaw bu mu defee coup bi ba pare. Hmm. ubbil nañ ko lépp lépp lépp fu mu jëm ci àddina bi. teeru yi gën a rëy lañ koy teeru. kon xam nga ne loolu ñoom la doon liggéeyal. dëkku Afrique yi aussi malheureusement. man maa ngi doon déglu sax ne xëy na dinaa dégg sax ak mhm. président bu jaale Mursi mhm. mais ba léegi déggoo benn président bu ko wax mhm. dafa mel daal dañ leen bu ngeen tuddee docteur Mouhamed Mursi dañ leen di rey wala da ngeen di dee ñoom ñëpp a daw res na cell noppi waaye léegi loolu seen musiba lay doon <laughs> léegi beneen bi Hadj Mbacke hmm. man dama ne bu dul dara sax mais nit en tant nit am na loo xam ne waroo koo seetaan hmm. li ñu def Mursi maa ngi la koy wax keroog ma ne man su ma lii su musaana am lu métti daal ci jullit yi damay am lu ma métti mais c'est la première fois ma gis euh, nit ku mag daan daanu mhm. ma rus damaa rus man mm. wallahi damaa rus rus rus ba mënuma sax expliquer lii daal ma naka la lan la lu parce que yëf yi dafa jéggi dayo mm. koo xam ne ancien président mm. mais bu ñu la jàppee ban kaso lañ la war a tëj wartu doon kasoon kasoontu yi. yow xam nga ne rek tey kaso bii nii. waaw fi ñu tëj ñoom Khalifa Sall. Mhm. ak fi ñuy tëj ñi fi nekkoon ak ñoom Karim Wade. Mhm. Mhm. mais bokkul ak fi ñuy tëj nit ñi kese. déedéet déedéet waaw te te ñii nekkuñu sax ay président. mais kii président la woon ñu tëj ko xam nga xam nga ci nan la daan tëdd. kaso bi cellule bi ñu ko bi ñu ko defoon. ruum la daan tëdd. bu amee lum lal mbàjj lay lal tëdd ci. allahu akbar pendant six ans. loolu loolu loolu loolu ki koy def toroxalul boppam. ñu def ñaari barrage diggante mag nit ñi. Hmm. ba noppi def ab ab verre. Hmm. oustaz. Hmm. avant loolu li ñuy tuddee sijnul infiraadi yi lañu ko def. mooy cellule boo xam ne cellule individu. waaw doo wax ak nit kenn du wax ak yow. moom donc dañ ko isolé. waaw pendant six ans. Mursi bu gisee nit ñi xam nga kan la leen di gis. mooy buy ñëw tribunal bi. juróom benni at. Mursi lu def. lu def lu mu war a def ñu koy dégg léegi li ma li man li ma rusloo man. moom laa lay wax Mbàkke. waaw ayca xam nga lii. Mhm. yow rek fi ñu toll nii yow. boo jàppoon kii la gën a noonoo ci àddina doo ko def nii. waxuma koo xam ne rayut sàccut. mostu ray mostu sàcc. docteur Mursi dox diggante mag docteur yaak ñuy toppatoo wérgu yaram ak pendant pendant six ans famille am ñaari yoon lañ ko mën a lañ leen lañ leen nangul ñu visité ko juróom benn ati kaso famille am ñaari yoon lañ ñëw te lañ toog ak moom matul dix minutes balaa ñëw ci kii bi ci hmm. tribunal bi ci kees lañ koy dugal kees goo xam ne ver la bu hmm. maanaam du wax kenn du wax kenn dégg lu dul dañ ko jox micro hmm. loolu àddina bi yëpp di seetaan beneen bi ñëw na ci tribunal bi wax atekat bi ne ko dama am problème sama santé fi ñu toll nii bés bu jot mu ngi gën a doy waar. ba fii may wax yow sama sama bi euh, bëtu càmmooy bi gisul gisuma beneen bi dama jabet te saa su nekk sama wér-gu-yaram léegi damaa bëgg ngeen faj ma su ngeen ma fajul bàyyi leen ma ma faj sama bopp sama xaalis tribunal bi ak lii yëpp boo demee ci youtube bi da ngay gis vidéo yi Mbàkke dëgg waaw mais mais Mbàkke lii yëpp àddina bi di ko seetaan mhm. mel ni dara xewul ba pare saa yu ne ngi naan àq ak yelleefu doomu aadama ak ak yelleefu doomu aadama léegi kii te kii ma lay wax xoolal jaayut dorog mhm. rayul nit sàccut mhm. moom daal photom yëpp lenn la mhm. défaut bi mu am mooy def ne man jullit laa dama bëgg dund comme ni ma ko yàlla diggalee lii mooy bàkkaar bi si def mais damaa am kersa euh, jullit yi niñ ko waroon taxawoo dafa des wallahi dafa des jullit yi maanaam temps bi nu waroon jël ci seen wax hmm. seen kàddu seen xutba hmm. seeni conférence hmm. jagleel ko cause yu mel nii defuñu ko buñ ci laal dañ koy romb mel ni ku koy daw mel ni ku koy ragal jamono yi mu nekkee ci jafe-jafe yi taxawuñ ko tey fi ñu adduna bi taxawu ko wallaahi te ñoom xam nañu ni moom laa doon wax ak démb imam daam mën na ko man àddina bi dañ ma jaaxal naa fekk gi fi nekk dafa jéggi dayoo. mu ne ma lu tax ma ne ko mais ñuy wax droit de l'homme hmm. gis nga Nations Unies ak ñu mel noonu. Hmm. nee nañ dañuy ubbi enquête ci lu rey Morsi. fi mu nekk nii waaw. ay organisme yu yëngu ci droit de l'homme ñëpp ngi wax nañ wax nañ wax li ko rey man ne ñi ñoo naa fekk <laughs> Mbàkke avant Morsi mii di dee hmm. xoolal huit cent et quelque personnes dee nañ ci kaso Sisi yi kaso Égypte yi xam nga lu leen rey même cause bi rey Mursi huit cent et quelques ci ñoo xamante ne ci farandooy Mursi yi lañ bokkoon. waaw. juróom-ñetti téeméeri. waaw ñoo xam ne dañ leen xañ seen i gar xam nga àddina kenn wéru mhm. xam nga ñi ëpp ci nit ñi tey. ci mënuñu dund sans médicament. Mhm. Mhm. koo xamante ni ab ministre la. ab député la. ab milliardaire la. dégg nga ay ay directeur société lañu. Mm-hmm. ay mag lañu. Mm-hmm. tàmm benn dund bi nga xëy sànni leen ci kàmb yooyu noonu. Mm-hmm. xañ koy garabam xañ ko xañ koy garabam xañ ko lépp. xañ ko tudd bu baax lekk gu baax. waaw euh, liberté. Ah, loolu rek rey na lu ko dal yeewale. waa mu noonu ñoo ñëpp ci cas yi la ñu dee. àdduna bi waxul dara. àdduna bi waxul dara ba léegi. léegi nag nee na ñu ngi ubbi enquête xool lan moo rey Mursi. <laughs> Euh, euh, Oustaz. yaa ngi fàttaliku daaw jéeg. Mouhamad Mahdi Akif. Mouhamad Mahdi Akif avant Mouhamad Badia bi jiite tey frère musulman yi kookoo ko jiite woon mm-hmm. am na juróom-ñeent fukki at mm-hmm. ci kaso bi xam nga lu ko rey mm-hmm. dafa cancer <laughs> ñu xañ ko garabam xañ ko garabam ba mu faatu ci biir kaso bi ndeysaan allahu akbar wa ma naqamu minhum illa an yuminu billahi waaw mais waaw léegi cest à lii yëpp mu ngi am te am na yeneen cas yoo xamante ni tey ci ci ni fi muur si jëm mujj fa la ñuy mujj àdduna bi yëpp noppi. Mm-hmm. yow loolu moo la rusloo. waaw man. Mm. cest à que sa noon même boo ko jekkoo da nga jëflante ak moom maandu. Mm-hmm. Mm-hmm. tey man ay droit de l'homme ay àq ak yelleef doomu aadama. man dama comprendre lu leen tax a jóg lan la. est que ñoom dañoo dëppoo ne bu ñuy kaas ak bu ñuy taxaw jullit rek jullit moom bokku ci. parce que lii bu fekkee lii taxul a jóg kenn naqariwul kenn kenn déggul sa kàddu hmm. mais yow lan nga fiy defati léegi bu ñu la laajoon beneen laaj hmm. oustaz euh, afghan ne la ban ban njuumte nga jàpp ne kon Mursi def na ko ba mën nga ne lii moom njuumte la ci moom wala lépp amul njuumte ci lu mel ni taxawaayam digganteem ak euh, Gaza hmm. muy euh, waa Palestine yi lu mel ni taxawaayam digganteem ak solte bi nga waxoon sànq mooy soldaar yi mhm. ak lu mel ni taxawaayu sawra bi nga xam ne ci la ci la jaaroon ba àgg ci xilaafa gi mhm. euh, looy wax ne kon ndax am na fo foofu wala amul benn njuumte waaw su fekkee am na njuumte daal mhm. mooy wóolu workat parce que kii nga xam ne moom moo ko daaneel di Abdel Fattah Sisi euh, Mursi moo ko def général moo ko fal jox ko armée bi xam nga kooku euh, Mbacke naax na ku nekk da daan woor jeudi hmm. moom si si si bii nii hmm. ak ak lëndi jumaa ji julli mbooloo la daan def hmm. temps yi muy ànd ak Mursi boo xoolee jëbi dafa ñuuloon maanaam jullikat yi julli julli ba seen jë yu ñuul moom noonu la defoon jëyam bi Cheikh Youssouf Qaradawi wax na ko benn bés ci benn interview bu bu amoon mu ne moom waxoon na Morsi ne ko yow sa waa ji wóolu nga ko xam nga Morsi ndeysaan dafa amoon confiance. di gars yi di même frère yi bi ñuy attaqué Assisi yi. Mhm. daf leen waxoon na seen xel dal indana rijal min dahab mhm. mhm. indana ah. rijal min mooy kii or la. waaw suñu ñii ñu yor ci biir gaa yi am nañ ci ñoo xam ne ay or lañ. te boobu mu ci mu ngi ci namm assises yi mi. assises yi mi ko teg yu yi yëpp. waaw assises mi def lii. Mhm. tey war yàgg na ci moo jaayante woon ak Mursi. Mhm. ci kaamil xam nga foofu bu ñu lay fal dangay jaayante kaamil. ci mhm. kaamil bi ngay waat. lépp mu wor ko. bu fekkee am na njumte daal. mooy dafa loolu workat workat. moom waaw ah, diiran li nga xam ne. moom def na ko waziru difa mooy euh, ministre bi yor armée bi Cissé mhm. nee na amul benn bés lu dul dina jokkook armée Amérique mhm. waxanteek ñoom moom Cissé moom Cissé te boobu durant li fi Morsi nekk chaque jour dina jokkook américain yi loolu ci ndigalul Morsi wala ci ndigalu boppam ci pexe boppam waaw mooy wor gi mhm. kon bu fekkee ne am na beneen faute bu mu def lenn la mooy xëy na moom wax na ko sax mooy fi mu jëlee nguur gi waru ko woon jël benn journaliste daf ko laaj Ahmad Din Adib ne ko situation yi ngay jël réew mi est-ce que jàppoon ne dina doy waar mu ne ko ah kañ mu ne ko fii fii fii Égypte toll ku ko jël da ngay xaru waaw daanaka xaru la Mursi moo wax loolu mhm. ne ko mais nag yëg sama responsabilité mhm. moo tax ma ñëw Mbacke est-ce que xam nga ne. Morsi mosul toog ne damaa bëgg nekk président. mosul am. bi nga xamee ne Moubarak daanu na. ñu ne léegi nag liberté am na ci dëkk bi. parti bu mu neex nga créer ku mu neex nga créer sa parti. les frères ji ñi nga xam ne ci la bokk. ñoom ki ñu tànnoon war ko def seen candidat moo nekkoon xayratu chaatir comme am na ak yoon. jàppal bàyyi. Mhm. ñu ne kon nañ tànn Mouhamed Moursi def ko plan B. Mhm. Mhm. bi Xayratu Chatib demee posé candidature am ñu bañ ko. Moursi ñëw jàll. nekk plan plan jàll. plan B ko mu nekk président. mu président. looloo ko fa indi. est-ce que xam nga ne bi ñu ko falee nanguwul dëkk ci pale bi. dafa loué moom. dafa loué appartement dëkk fa ak njabootam. est-ce que xam nga ne buñ ko falee. lu taxoon loolu lu taxoon nanguwul dëkk ci palais bi. non buggul alalu réew mi. biñ ko falee nanguwul jël saleer amul amul saleer même bu doon dem Màkka di defi umra. jabaram du dugg ci avion présidentiel. fi yeneen nit ñi di dugg. foofu lay dugg foofu la jabar jiy dugg parce que réew mi faluñu ko moom. jabar ji dafa ne bu ma kenn wax première dame ci réew mi. man première dame tur yooyu neexuma. Hmm. jabaru Mursi ji. xam nga jabar ji aussi wootekatu yàlla la. waaw te lu ree lu ree ñoo xumb xumb mbàkke. Hmm. ak lu mu rëy rëy rëy. Hmm. su waxtu julli wu jotee. mu ne seen waaye lay wax. ñu julli gaay sàpp ci gànnaaw ñu julli. Ah li li mu li mu nekk président yëpp mosu tardé julli fajar ci jàkk. fajar ci jàkk. moom nekk président gi soppiwul dara ci lim nekk. dara dara. dara. xanaa àdduna kon Dramé ñoo bëggut nag euh, léegi façon doxalin boobu façon doxaliinu nit ku baax question baa ngi noonu nag euh, àdduna bi ñoo bëggul loolu bu ma koy wax di la ko joxaale comme ni ko oustaz waxee question boobu am na solo question baa euh, ndax dañoo seetlu ne ku mel ne Osama Ben Laden hmm. xëy nañ li ko dal yëpp dal ko jullit yi àdduna bépp di seetaan ñu jël tey ku mel ne euh, maanaam Saddam ñu rey ko bisu tabaski àdduna sépp di seetaan ñu jël ki nga xam ne mooy Mouhammad al Khadafi moom itam noonu àdduna sépp di seetaan ñu ñëwati tey ba ci Mouhammad Mursi mii nga xam ne ci attekaay ba deem gii di deegu lënt goo xam ne li nga wax rek hmm. xëy na suñ boroom a namm sax mu dund ba fii waaye yi tax nit faatu yëpp jaar nañ fa ak moom te àdduna sépp di seetaan fan la àdduna jëm ak nit ñi nga xam ne dañoo bëgg a baax ak ñi bëgg a jub te njub googu hmm. arrangé wu te itam Mbàkke bala ngaa sori hmm. gis nga bi ko euh, Seyda Xunna laajee hmm. lan mooy sa programme hmm. gis nga loolu mu doon wax hmm. noo ko ku ko ñàkk dootu dootu dem sëñ Mbàkke yow lan mooy sa programme mu tàmbali naan ko lii laay def suñ pare lii laay def. Mhm. non loolu moom benn affaire la. dëgg la ponkal mu toll noonu. Hmm. kon li nga wax léegi mooy. waaw mais lan la adduna bëgg. lan la lan la adduna bëgg. Hmm. parce que li nga wax nii hmm. réew mu mel ne Égypte di réewum jullit ak ni ak ni yàgg ci civilisation. waaw waruñu woon a gëmee programme. vraiment léegi Mbacke. gaa sax ñett ñi nga tudd sax. ñeent ñu sax bokkuñu. waaw bokkuñu ak moom. bokkuñu moom bu ñu waxantee dëgg. sa Saddam Hussein. am na ay qualité mhm. mais rey na nag mhm. am na waaw xare na def na def na lu bare bari ci ay njuum tuur ay bakkan dëgg la d'accord naa ci yow bu a baax boobu moom mhm. dëgg la li moo yàlla baax ñu tuur bakkanam waaw ñu li ñu li ñu li nga xam ne nag moom lañ ci war a taxaw ci dundam mooy bi ñu koy rey ñoom rey ñu Saddam mais dañ ko doon rey pour humilier jullit yi foofu laa bëgg a waxe nag moo tax ñu jàpp ñu bésu tabaski ñu rendi ko loolu sax Cheikh Yusuf Qaradawi yu nee na bésu tey bii nii. kafaara na bépp ñaawteef bu mu mos a def. waaw waaw. waaw. Mhm. ndax itam mujj ga rafet na. waaw Xadafi aussi. Mhm. bu ñu ko waxee bu ñu ko waxul reykatu nit la woon. Mhm. xëy na nag yeneen bagage ñoo ci laxasu. dictateur la woon. jàpp boroom xam-xam yi di tëj. di def lu nekk def na ko. Oussama Ben Laden. Hmm. waaye moom it Kadhafi bi ñu koy rey am programme mu euh, gis ne Afrique wërta dépendre ci euh, doxalinu Europe. wala mu hmm. doxal ci defandu Amérique gëm boppam gu mu woote loolu tax na rey ko. parce que muy jëf am na yeneen président yu jëf lu rey gi waaw rey gi moom reyu Kadhafi France la. waaw moom la. ak mbir yu ñu seqoon ak moom ci wàllu xaalis. ak Kadhafi gis-gis yu mu amoon ci Afrique. koo ci teg léegi. Euh, Oussama Ben Laden. waaw aussi bokkul ak si parce que kooku dafa euh, idéologie bi mu gëm. Mhm. mooy dafa gëmoon jël ngànnaay. Mhm. xeex. waaw jaamaarloog américain yi fu mu leen fekk rey leen. Mursi mhm. nag du loolu. kii kii sens contraire bi la kii li mu gëm mooy islam wasat yi. islamu dialogue. islam globalité. islaamu xam-xam. islamu liberté. islam ku nekk nañ la bàyyi nga wax li nga gëm. nga dund li nga gëm. wallaay mëstu rey mhm. lam yaqtul ahadan mhm. diiraan li mu fi nekk yëpp mosul tëj nit reyul tëjut reyul tëjut sàccut moom ñu tëj ko rey ko waaw foqati nguuram donc Mursi lay <laughs> ndeysaan Mursi kaala mhm. boo xamante ni àddina ah, bi dinañ ci taxaw jàngaat ko def naa ne ay études yu bëri dina génn ci Mursi mais oustaz euh, oustaz Aline man li ma gën a yéem ci Mursi mooy avocat bi li mu wax bi négociation yu bare. xam nga gars yi ñu ngi doon négocier ak ñoom ci kaso bi. proposé nañ leen sax ne leen su ngeen bëggee ngeen nangu rek coup d'état bi comme nekk na léegi réalité la mënatul leen si dara ñëw leen ñu jox leen ay post ngeen nekk ay ministre coow lu jeex ñu demaat élection lu ngeen am jël. ñu ne mukk du ñu négocier. yéen da ngeen di coup d'état amu leen légitimité duñ ko nangu. Hmm. looloo tax ñu des ci kaso yi. mais buñ ko nangu woon génn nañu. avocat bi bi mu ñëwee. def na ko man Mouhamed Moursi dama considérer sama bopp comme président Égypte ba léegi parce que ñii lii ñu jël moomuñu ko ne ko nag man damaa damay jéem a roy Seydina Ousmane waaw damay jéem a roy Seydina Ousmane Seydina Ousmane xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko waxoon ne ko yàlla solol na la mbubb moo xam ne mhm. aw nit dina ñëw bugg koo summi mhm. mais bu ko summi mooy jaayante gi julli yi di jaayanteek yow mhm. bés lu mu métti métti dinañ la taxawu forcé ko mais bul nangu mhm. Seydina Ousmane sa la jàpp ba ñu rey ko mhm. gis nga Seydina Ousmane bi saxaaba yi jógee bëgg koo défendre daf na leen bu kenn yëkkati ngànnaay bu dee may seen kilifa dugal leen ngànnaay ci mbar yi te dellu seen kër toog déglu ma waaw la xaw ma nekk ko waaw allahu akbar reyul kenn ba léegi Mursi ba léegi subhanallah ci loolu la nekk Mhm. reyul kenn di taxaw di taxaw ba ñu rey ko mhm. euh, àdduna yàgg naa mi jàmbaar dafa am sax benn laaj bu am solo encore mhm. euh, euh, Mouhamadou Lamine mooy bi bi ñu ko laajee ci wàllu digganteem ak ixwaan yi mu ne def naa leen sama xol bëgg leen lool te gëm leen waaye actuellement nii président réew mi laa waaw kenn xam nga xam waaw Euh, foofu dafa am loo xam ne ku xamul euh, histoire ixwaan yi mhm. Mhm. doo xam li mu def li muy tekki mhm. actuellement ñi gën a fonk jaayante ci aalam bi ixwaan yi la ci lañ bokk waaw tey boo jaayante les frères musulmans sa jaayante bi day day day joué ci sa avenir yëpp dëgg la boo xasee jaayante même ñiy dem bitim réew di jàngi sax mursid bi moo lay wax demal jàngi moo lay wax jàngal lii waaw mooy wax kii nekkal journaliste kii nekkal lii kii nekkal lële. Mhm. waaye avant loolu ki nga xam ne moom moom la jaayanteeg mooy euh, docteur Mouhamad Badia. Mhm. Mouhamad Badia bi coow li bëree def na leen moom man la jaayante loon moom Mursi. Mhm. mais bés ni ki tey ana ubayiuhu li annahu amiri. Oh. Oh. waaw. Hmm? tey may jaayanteeg moom ndax mooy sama kilifa. ndax moom la ñu fal mooy mooy amiru képp kuy égyptien képp kuy égyptien. waaw te avant muy nekk muy nekk euh, amir euh, égyptien yi. Mhm. kee moo nekkoon sëriñam. ke lee nekkoon sëriñam. moom la jaayante loon. Mhm. léegi sëriñ bi moo jaayanteek moom ci stade. addina bi yëpp dégg ko. léegi nag ne ko nag jaayante bi nga jaayante wul en faytu ko anil baya. Mhm. maanaam bis ni ki tey. teggil naa la ko teggil naa la ko. amatoo droit di ma laaj amatoo droit di ma tàggu. Mhm. man maa lay laaj maa lay tàggu. Mhm. allahu mhm. waaw. ah ñii nag am na. tarbiya boobu sëñ Mbàkke tarbiya ba beneen tarbiya. beneen tarbiya la ay ca gis nga kii si kooku muy jaayanteeg noonu. mursid boobu nga xam ne ci ñu tëj ci la bokk. ba actuellement Mouhamad Badia Mouhamad Badia. il a plus de soixante dix ans. waaw parce que 1943 la judd. waaw Mouhamad Badia bi nii xoolal euh, actuellement ci mën nañu wax ne cinquante scientifique yi gën a fort ci alamul arabi ci la bokk. ñii daanaka frère yi dañ dul ay nit daanaka. lépp lu nit di ndamoo rek ñoom ca kanam lañ nekk. waaw côté bu mu mëntu doon. Mm-hmm. xam nga tey. ci nangu kilifa nangoo jàng. mbaa seetal. Mm-hmm. ñu ne la kii scientifique la boo xam ne dem na ba NASA soxla ko. di mursi mm-hmm. kooku kañ bu ñu leen a mokkal na alxuraan danga naa lii nan la mën a nekke <laughs> wallaahi bu fekkee seen scientifique seen i avocat. seen i magistrat ñoom ñooy mokkal alxuraanul karim. kon nitu diine yi nan la ñuy mel. idéologie yi xeex ci àddina bi tey mooy ñi nga xam ne dañu bëgg a delloo si waat diine def ko mu nekk système de vie mhm. def ko mu nekk civilisation ak ñi nga xam ne dañ ne leen lool du fi nekk mhm. tey nag frères musulmans yi ñoo représenté courant boobu mhm. mooy li ñuy tudde al islaamu siyaasi islaam boo xam ne li gaa yi bëgg la bëgg du nekk islaam boo xam ne ay wirdi rek ngay def mm-hmm. ak woy di def ay di def ay di di jàng ay wéy rek mm-hmm. ak di dem màkka di va et vient yu dul jeex mm-hmm. dégg nga ak di def yooyu daal yoo xam ne yow daal yaa ngi ci sa beneen monde da ngaa xam li xew te bëgg li yi bëgg da ngaa xam li xew bëgg yi bëgg loolu frères musulmans yi ñoom ñoo ko représenté actuellement moo tax ñu leen di xeex partout dans le monde tey buur yi nga buur yi arab yi boo gisee ñoom ñooy ñi gën a bañ frères yi actuellement xam nga Assisi moomu ñu ko financé ba mu def jëf ju ñaaw ji ni Dubaï la ak Arabie Saoudite mhm. est-ce que xam nga loolu Arabie Saoudite ak Dubaï Arabie Saoudite ak Dubaï ah waaw mais yow réew yi nga tudd ay réew yu jullit la ay jullit da ko jiite mhm. ñetti réew waaw officiellement dañoo tere affaire na ñetti réew mhm. compliqué na dañoo tere officiellement interdire ne kenn du fi jullee Mursi ci réew mi yëpp. maanaam bi mu faatoo nii. bi mu dañoo bañ ni kenn du ko defal. kenn du ko ko defal ci ñetti réew yii. muy ban ban muy réewu boppam Égypte. Mhm. xam nga kan moo suul Mursi. Hmm. doomam jabaram avocat am. ndeysaan. li metti na di. waaw Erdogan nee na ko di di ragal nit ba mu faatu na wax dëgg yàlla. waaw nga war koo ñeme nag. nga war koo ñeme nag. waaw kooku moom bala ñoo jeexal danañ taxaw ci ay position moom. waaw Erdogan Erdogan moom am na position. loolu la ko wax léegi léegi Arabie Saoudite. Mhm. dañoo tere. ne kenn du ko fi kenn du ko fa jullee salaatul xaayib Dubaay mhm. dañoo tere na kenn du ko fa jullee salaatul xaayib Urdun mooy Jordanie dañoo tere woon mais population bi dañoo xëtt tere ga mhm. dañ ne kenn mënul tee ñu jullee ko ah waay jullee ñaanal ko donc koy wax dëgg yàlla waaw jullee ko léegi léegi taqaariir yi nee na ñëw li jullee Mursi. ci histoire humanité. ñu gis nit ku ñu jullee lu toll. waaw ci réew ci àdduna ci àddina bi. danañ mhm. bañ dalu jullee nit salaatul xayb ba yàlla créé àddina ba léegi gisuñ ku toll ni liñ jullee Mursi ñu jullee ko. ci àddina bi. d'ailleurs fii ñun suba incha allah. Mhm. bu ñu jullee juma à seize heures. Mhm. ci Sicap Mbao ci terrain Sicap Mbao bi. ci wetu juma ji terrain basket bi. ci njiitu imam Youssouf Ka. dinañ ko jullee foofu. macha allah. ci eh, wetu ah, stade du Bari hmm. ima eh, ca ca Géejawaay waaw hmm. ah, jàkk ji nekk foofu hmm. imam Seydou lii danañ ko jullee foofu suba maanaam semaine bi yëpp nit ñi dañ koy jullee ci réew yëpp a ngi daje waaw ko ko ñaanal ak di rafetlu taxawaay yi nga xam ne moom la amoon di ko delloo njukkal waaw est-ce que daana te yaay wax xam day woo fawwidu amri ilallah wallaay ndeysaan wallaay wallaay fa sataskuruuna maa aqulu lakum woo fawwidu amri ilallah cay laay waaw mm. loolu bëggoon na ko lool. est-ce am na solo mm-hmm. am na solo al amin waaye waaye nag oustaz xam naa li ma wax Lamine léegi na ko affaire bi garaaw na. Mm-hmm. mooy réew yi nga tudd parce que bi ñuy wax léegi da nga naan muri mursi xanaa ñi koy xeex mooy ñi nga xam ne duñ ay jullit réew yi nga xam ne duñ ay jullit euh, taxawaayam bi muy taxaw di dellu ci alxuraan ak diine metti leen waaye boo joxoñee réew mu mel ne Arabie Saoudite joxoñ tey réew mel ne baay nga xamante ne eh, eh, wala boog Imaaraat nga xam ne ñoom wax dëgg yàlla euh, man daal loolu doo xam sax nan ngay formuler bi wala nan koy waxee bu fekkee ñoom ñooy jumtukaay bi ñu xeexee diine léegi dafa am tuuti feebar buy am mhm. mooy feebar ñu de taasub mhm. hmm. ak par parloo par parloo waaw xam nga nit su fekkee danga nga xas contre nangamam mhm. lu jóge ci moom rek nga ne baaxul loolu ab feebar ab feebar la dëgg la dëgg la ndax euh, ñu mel noonu nga xam ne li na ci xam-xam li na ci kii yëpp dañ ko am. Mhm. nga jékki-jékki taxaw ci taxawaay bi mel noonu. Mhm. taasub rek moo ko mën a jur. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la. kon al amin bu mbir mi tollee foofu taxawaayu ku mel ne ordogan gis naa mu taxaw ci taxawaayu yaatu. Mhm. ndax si xam naa li nga wax ci métti ta li ñu ko doon teg métti na. Euh, dafa faatu duñ wax ne dañ koo rey ci li ñuy wax yëpp waaye mën ngaa wax ne dañ koo rey ndax itam jàpp ka façon biñ ko tëjeeg seetaan mi ñu ko seetaan ba ni mu daanoo ca tribunal baag yi nga xam ne moo ci am dafa mel ne rey ko la gën a nuru ci koo xamante ne ni tawar rek faatu. waaw Mbacke loolu moom. defe naa kenn du ci werante. Mhm. que koo xamante ni lii tax mu dund mooy mu jël garabam yi. Mhm. nga xañ ko garab yi. Mhm. yow yaa ko rey. àdduna bi dañuy tappale rek. Mm. ay ubbi enquête ak yooyu bu ñu fontoo. Mm-hmm. ñoom li ñu bëggoon def nañ ko mooy rey nañ Mursi. Mm-hmm. waaye rey bi dafa dundal idéologie mm-hmm. dafa dundal gëm-gëm bi gis nga rey. man dama dama jàpp ne noon yi amuñu xel. suratul buroo jénga noonu. waaw gis nga noon yi. ñoom muusuñu. saa yu ñu reyee aalim lam gëmoon day gën a tasaaroo ci àddina dëgg la de dëgg la de sootul bureau ji la euh, Mbàkke wallaahi euh, Seyd Xutbu xam nga euh, tey Mursi ci frères musulmans yi la bokk ki fondé les frères mooy al imam Hassan al Banna imam Hassan al Banna bi ñu koy rey Égypte boobu Seyd bu mu ngi Amérique moom Amérique la yégee reyu Hassan al Banna dafa gis yahud yi tubaab yi di fecc <laughs> ndax kontaan ci dégg xasanil bannaa dee seet xut bu ne mais xasanil bannaa ndekk am na dayo bii hmm. seetal loolaa koy mooñ moom moom gis nga loolu moom looloo ko révolté waaw mhm. waaw nag lii xaw ma woon ni dayo bii dayo bii la xasanil bannaa ñoom daal bu ñu muusoon bàyyi xasanil bannaa hmm. deyam hmm. moo yee seet xut bu mu ne su ma ñibbee dinaa adhéré ci mbooloo mi looloo tax seet xut bu nekk frère seet xut bu moomu bi mu ñëwee xam kañ lañ ko rey 67 hmm. hmm. ba fii may wax ak yow nii comme genre ni ñu def Mursi lañ ko def hmm. seet xut bi bi ñu ko reyee 66 lañ ko rey 66 66 gis nga seet xut bu ah, ba léegi ba léegi fii ñuy wax ak yow nii kenn xamul bàmmeelam ndax ñoom itam di ko ragal ba mu faatu dañ koo ko dañ koo nëbb allahu ba fii may waxee yow nii Oustaz laay dégg muy nettali histoire am ak tafsiram bu am solo boobu. mu ngi noonu waaw mhm. ba fii may waxee yow nii. ku leen ne fii mooy bàmmeelu Seyd Xutb bu waxul dëgg. armée armée bi da koo rey nëbb ko. Mhm. te itam suñu mm. euh, bu fekkoon rey gi amut. Mm. waa ji nga xam ne dañu ne li muy doxal dafa baaxut. Mm-hmm. li ngay li ngay rey pour wàcce ko. Mm. Ah? bu fi gouvernement du rey la toll noonu. déedéet dëgg la déedéet. dëgg waaw waaw bu doon kay defaral la tax a jóg. defaral tax a jóg doo àgg foofu moom. dëgg léegi comme moom am na mandaam. Hmm. léegi moom comme penc mi d'accorduñ ci moom. Hmm. wala nee nga politique am baaxul. waaye bàyyi ko mu def mu def mandaam bu hmm. jeexee. peuple bee koy folli. dëgg la waaye adduna si daal suñu bàkk ñu ngi seetaan yoo xam ne. waaw wallaahi vraiment yéeme na lool. Ah? xanaa li al amin wax mooy dalal xel yi ba noppi ñu tiitaat. mooy ñoom ñi ngi rey. waaye taxut message bi jeex. waaw léegi ay euh, jàmbaar gis nga seet xut bu bi ñu ko reyee. Mhm. dañu génne terrain Égypte ba mu daj. Mhm. ku ñu gis nga yor téere seet xut bu dinañ la tëj fukki ati kaso. téereem téereem. maalim fi tariq fi zilalil Qur'an. Mhm. téere li yi ñu jotoon a mool. benn jour la ñu dajale quarante huit mille volumes. lakk lépp lakk lépp. pour rey ko effacé ko. bi Mursi bi génn àdduna tam fi nekk nii am na liste téere yoo xam ne fi nekk. waaw mm. ci Égypte. Mm. actuellement nii kenn du ko laal. waa léegi yow Mbacke. te 1900 jàpp ne téere yi ñooy def gaa yi liñ doon. Ah yow xoolal 66. waaw lañ dajale woon téere Seyd Xutb bi lakk ko. Mm-hmm. Mm-hmm. mais tey est-ce que nit mën naa gën a siiw ci alamul islami bi. Seyd Xutb ah nga xam ne xamuñu bàmmeelam ban bibliothèque ngay dem ban intellectuel musulman ngay gis ci àddina bi. partout dans le monde te xamul kan mooy Seyd Xutb. wallaay tuddee nañ ko ay école tuddee ko ay juma mhm. tuddee ko ay institut tuddee ko ay mhm. mbedd mhm. kon dañ koo dundal reyuñu ko Seyd Mursi mi aussi